tey ji ma wax leen li ma nar ci màggal bu leen ma dog nag déglu leen ma yeggal woo leen njaboot gi te ñu ma si déglu góor ak jigéen bu kenn wax nañ teewlu 18 safar Cheikh Bamba moo ko wootee ku wuy jiwul ba alku yaa koy wéete moo tax mënaa leen yéen njaboot gi bale leen kër gi na set lu yàqu it defar leen bis bi bu jub see nanu yeesal néegi taal fa lu neex te génn jox ko gan yi lal ya na darab ya set bun fàtte ay sànkekat ngir yooya bañ di màtte na ventilo ya tàkk bu am àpp kilim ya taal leen ko fu nekk yi ëpp ku ñàkk yi nag na nga jënd wantaay jox gan ya ñuy ëpp fu nekk lay jaay ëtt ba set wanag ya set tey am ndox am saabu it bis bee ko laaj ne lépp dox bu ñetti fan desee ci màggal nañu door di togg ñam ya jox ko gan ña ñuy dóor bu bis ba yegsee nanu berndeel ñépp gan ña ci biir ak gan ña toog di yopp sol leen lu set xeeñ leen lu neex te belli bu def ku ñëw nu jug taxaw di xulli nantee la jug taal ndekki bisu màggal na ñëpp jug gaaw leen bu kenn yàggal na kaasi set rafet nu teg ko ci palaat lépp na ñëw bu dara des lu ñuy xalaat bu buñ ndekki nuy xulli taxaw ni ngàmmu nan génn dem naa leen na ak jàmm bu buñ fa jugee nan dem te lal basang ya ku mën a jàng ñëw nu tas kaamil ya lim buñ fa am nu ñaan te def ko àddiya jébbal ko Cheikh Bamba kaman ca mbër ya soxna yi sol leen lu rafet duggee ko waañ teel leen a taal ceeb bi nañor te bu mu xooñ taal leen bu xonq togg leen it ceeb bu weex na yëpp am ku yegg si tànn bu la neex kaani salaat tamaate farce cornichon yii na ci am napp ya ànd ak torson te bu ñu añee ba noppi nan attaaya njar lu te yor kurus yay taaya ngoon gi nu génn jàngi ay xasiida te berndewaat nun bernde mooy sun aada réer bi numis wi dal di njoñ suñuy ginaar te bu mu lewet bu mu wex xorom bu mu xeeñ saxaar te bu ñu réeree rek nu dem ziyaare wuti jumaa ja gis ko xol maare ku mën a dem xabru ya na nga fa yegg ku ko mënul foo màggaleet mu màgg jërul di xat-xatloo ba fa yee fitna foo toog nga ñaan te dem sa yéene mat na te maa ngi dénk gan ñi fi màggal si ñu teey te dal ngir Bàmba lañ fi wuy si bëggu fi tux bëggu fi naan ay sàngara bëggu fi woy nañ moytu caaxaan du dara soxna yi selli leen te sol fa cël gu yiw xewu xaddim wii wuti naa yeneen xew yéen gan ñi it ni ngeen ci boole am xel dina la noppal noppalit fa ngay dal di leen sonal siisu ma nag daay yeete ku ñëw ci kër ñu génn néegee jox la ko di la teral loo soxla nit ña indi ko lu ñu am di def ca bis ba ngir teral la ngay dem di laaj paas loolu gàtt xel la boo mënta indi sax nga jéemawut paas aller retour moo gën nga dem ñu koy kaas te saa ci màggal si nañ ma diglu kuy fob ba dem Touba nga war a dallu dugg ci kër ñu jox la néeg yaatal la di la teral ngay sàcc ñàkk ful la sëfër yi daw leen ndànk dal leen ndànk ku sonn noppalul bu leen nu sànk yàlla nu yàlla may nu tal ko fekke ko te lañu fa jëf yàlla borom bi nangu ko képp ku màggal bis bi yàlla na màgg lu mu bëgg am ko lu mu door mu yegg Cheikh Sidi Muxtaar yàlla na yàgg a woote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 alma